xaqiiqatu munawwara waaye ma Maodo ba yor sariqatu mutaqara Pape tey dama ne man duma wax ndax kuy wax baam ju la waxal nga waaye booy wax ci Binta duma ànd ak sama sago ne bu ñuy wax ci Binta du ànd ak sagoom damay nuyu nag sëñ Manirou Amar ba ne day nuyu sëñ Manirou Amar mii toog. nga xam ni sama jëmm ju xeebu jii moo tax mu bàyyi koo sori nee na nga xam ni jëmmam ju xeebu gii moo tax mu bàyyi koo fu ne ñëw toog. Amar maa ngi ñaan nga gudd fan lool. Amar nee day ñaan nga gudd fan lool. yàlla taxawu la yàlla sàmm la. yàlla taxawu la sàmm la ak sa barke maam Serigne ba sëñ Maniru Amar di quelqu'un très social nee na di quelqu'un très social muy sëñ Maniru Amar mi sëñ Maniru social moo nu boole nee na sëñ Maniru social moo nu boole muy koo xam ne dafay bay yor ay nagu élevage saa bu ci récolté dara jël ko joxaat ko jaamu yàlla nee na koo xam ne day bay yor ay nagu élevage lu ci génn mu joxaat ko jaam yi ak talibé sëñ Bamba yi te bëggul kenn ku ko wax nee bëggul kenn ku ko wax mu waroon a oyof te diis waroon a diis te oyof lool nee mu waroon a diis oyof tol Amar maa ngi ñaan yàlla gudd sa fan Amar nee day ñaan yàlla nga gudd fan di di gërëmaa nag sama sama sama papa bi Badara ma ñëw papa bi. waxal RAF4 bi képp baale. 682 dafa baale. RAF4 nu koy waxee mu déggu may tubaab. RAF4 682. ci ginnaaw na ñëw dimbali gars yi ñu génn. RAF4 682 ñëw dimbali gars yi ñu génn waaw. bi ci des mooy yaa xam. papa bi nee na bi ci des mooy. nee day gërëm sunu xalifa Badara Ñang moom li may wax du sunu du sunu papa du sunu taaw sunu papa la. nee du sunu taaw sunu baay la. boo gisee amuñu saga ci moom. nee boo gisee amuñu saga ci moom. ba muy dimbali sama yaay boobu ñun mun noo xëy am juróomi. nee ba muy dimbali seen waajur yi ñoom mënuñoo am juróomi dërëm. moo jiili mii nga xam ne moo jàpp sama loxo yóbbu ma ne ma jàngil métier. moo tax moo jiili mii nga xamante ni barki démb ba ni may rakka moom lañu ko bàyyile nee na amuñu dara. waaye jiili fi mu taxaw rek la Badara taxaw nee na fi mu taxaw rek la Badara taxawee su ma gërëmee jiili gërëm yana sunu xalifa nee na bu gërëmee jiili gërëm yana sunu xalifa ak waali gërëm na njaali waali gépp gërëm naa njaari waali gépp ci jigéen ñi ma jël jigéen ngërëm di teg ci loxo may mun a ñang nee na mu jigéen ñi mu jël ngërëm di teg ci loxo may mun a ñang ak nday ñang ak ñi mu àndal ak nday ñang ak ñi mu àndal nuyu Abdou Diop ak ki nga xam ne moom mooy ndongoloo nu nuyu Abdou ak ki nga xam ne mooy ndongoloo mii

àndal nee na di gërëm dégg daaj mi mu àndal gërëm nag mi nga xam ne ku ne xam na maa ngi moom nee na ku gërëm Medoune mi nga xam ne ku ne xam na leen ñoom ñaar mi borom impro nekk am yéene ma ko nee na di xaritam lu mu am yéene na ko am na doom waaye da ko wan ginnaaw ne ma damay nee na soxnaam am na doom waaye da ko wan ginnaaw ni ko ñëw kon maa sant bu nee mi ngi lay sant bu baax nee na bokk yeeg bokkaat yi di gërëm badaraam ak ñëpp rek nee na di gërëm badaraam ak ñëpp rek sànq nag fi tax ma dugg nee na fi tax ma dugg mooy Binta. nee na Binta mii nga xam ne suñu séeri la jëlal Binta yow yow yow jëlal ma Binta waaw. sama yaay du ma ko gërëm dama yaayam ndey laam da koy ñaanal yàlla ndax bintaa bu ñëwoon melul ni sama yaay bëgg duñu yàgg ndax li bëgg-bëgg bintaa sama yaay ma ko gënal nee na li muy bëgg-bëgg bintaa ndey laam ko gënal nee na moo ko gënal ñëpp yaay mooy sama karaw yi bakkanam nee na yaayam mooy karaw yi bakkanam man ku sama yaay bëgg-bëgg naa ku xuloo yaayam xulool sax da lay di gërëm boogaa mbaay waaye bintaa waaye bintaa téléphone man téléphone la nee na moom téléphone la moom mooy piis bi yaay piis

yërëm na ma na ma li ma bëgg la bëgg lu mu bëggul bëgguma ko li xam na maay kan bintaa xam na maay kan ku ku ne xam ne liggéey bii ñu ne dafa sensible di nga tëdd quatre du matin di tëdd quatre kenn ku ne dina la bëgg te yàlla rek tax te doo xam lu mu lay bëgg te waaye moom supporté na ko nee na faal maa ngi ñaan yàlla yàlla guddal sa yàlla bàyyi maag yow yàlla defal la jàmm yàlla bu kenn dox sama diggante yow ndég jigéen di woo ma ku ma xool daaw xool ma ren xam ne jigéen di woo ma waaye dangaa doon baax yàlla na sa jàmm yàgg lii rek la doon seede li la laam doon wax la doon dëggal musin Babacar Sy di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm waaye alaaji Fadal ñang ñoo ngi koy ziar baax yow sa xol bu rafet ak sa mbaax li ma waral ñu bàyyi lépp lu ñu jàppoon teel fee ñëw di ziare baax a baax El Hadj Medoune Diouf di ko ñaanal jàmm ju bëree bëree bëri nga xamante ni ci 6 heures du matin la ma woo ne ma yeewul ma ne ko yeewu naa Abdou Aziz géwél bi si Louise yàlla na yàlla defal jàmm Mbaye Diop sama mag suma frère yàlla nga am jàmm léegi nag ana ana Papa Mohamed Alla xam nga Aziz maa woo ma kaay dugal seen Cissé léegi yow laa nga dugal ko dugal ko yaa xalifa maam xalifa tijaano yaa xalifa maam xalifa tijaan ak bëgg Serigne Babacar ngay jooy da ngay jooy ngir maam xalifa mbay day loo naa ko yàlla Baabakar wuy maam mooy xalifa maam xalifaati jaar sëriñ Babacar borom boole kaara beeg manto beeg sàkkar yàlla beeg médaille sëriñ Cissé sëriñ Babacar ci sa waaj bëgg ko doy loo ko tax ñu naan la sëriñ Cissé mu sëriñ Babacar ali doomi sa sambay naar di ale sambay naar farami sa sambay naar sëriñ Babacar si sa ti dama bu na lakal xeeti sunna lu du sunna bon nag lu bon bul ci dem saxal ci woyof lool si di fagay dem ma ca jowaare ay sëriñ Babacar si Malick kay leen ñu dem Tiwaawan ziyaare Seydil Aboubacar ku ko deful ëllëg yow mal xiyaam du nu xaare maam xalifa yaa waxante lu baax ndax suñu borom loolu la dogal ci ak bokk waaye ñun bokk yi dama bëgg rek ñu yaatal dëkk yu gan ñi tuuti comme dañ fekk si te jot amut te kenn ku nekk xam na ne sëñ Cissé ni ko waxee amul jot kilifa la fee jóge ca këram nit ña nga xam ne dañ koy soxla ci wàllu ñaan yàlla ña ngi ko fay xaar mu bàyyi leen fa ne sama kóllëre ak Fadel ak ni ma mel ak moom moo tax ma faw ma dem teew ci tudd mi dama bëgg nag ñu jox ko jukki ko ba pare ñun bokk yi ak xarit yi ñu des fi àggale tudd mi keneen de sëriñ yi jàmbaar yi seen dinaa ma di mooy wax na ñëpp dëgg alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin santaat nañu yàlla julli nañ ca sangam ba seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nam nit nag bokkut ak nammi yàlla nam ak nit bokkut ak nammi yàlla li ñu fi dajale namu namab yàlla la li ñu dajale ginnaaw gii yàlla jaaree ko ci si faadal ñang mii namab yàlla la te namab yàlla bu taxee jóg nit ñafa dem war na noo xam la leen tax a jóg lan la dëgg la ndax lan fadel ki ñëw indiwut ko ki ko indi ki indi ñëpp ko indi mooy borom bi subhaanahu wa ki indi ñëpp moo ko indi mooy borom bi subhaanahu wa bi ma yégee lii xew na ci ginnaaw raay ki xewle di kenn ci benn adres la Fadel am maa ngi nuyu mboole waa ginnaaw ndax yaram wee tàng asalaamaaleykum Fadel nit ku baax la Fadel nit ku yaru la nit ku imaasam rafet la Abdou Aziz Guèye bu Sylvie maa ngi lay siyaara di siyaar mboolem njaboot gi nga xam ne lañ fi fekk rawatina kilifa yu ñan am ngeen doom joo xam ne ku ne bëggoon na ko jur ndax yaram ndax i tegginam ndax réglé boppam du fu ne la Serigne Cissé di dem du ku ne it laay joxanteeg loxo ndax Serigne Cissé imaasam la am ak jëmmam kum koy ruufanteeg war naa xam yow yaay kan. defe naa fi ma gëjee woon Pikine mooy suma waa ji alaaj Medoune bi muy yeew soxna laa fi gëjoon ba tey bi ma fi dikkaatee booba ñu ngi takk si. soxna Jami Guèye ma dugal ko ci avant premier bi la 15 li xew-xew bi namma namma bi yàlla amaan na foofa foofa yàlla yónnee na namma bi yàlla amaan na foofa muy la 15 ci alaaji Medoune Diouf ah. ajaratu Jami Guèye yàlla may ko tu tànk muy bu jigéen la kees kon nañ fa dajee ndax ndax ndax bi ma ko waxee bi ma bi ma medun waxee na ma fadel soxna sa wàcc na dama ne ko loola du ma nekk apelu fadel ndax lu ma waajoon la kon damay duggaale ci mbir mi fadel ngay nit ku baax ginnaaw di ay nit ñu baax ñoo xam ne nit ñu mën a gan lañu ndax nit du sagoo lu dul fa mu nekk bu ko defee maa ngi siyaar mboolem communicateur yu ñu fi fekk teg lépp ci loxol Abdoul Aziz yow sunu soppee nga sunu xarit nga ñoo ngi lay ñaanal yàlla bi ma ñëwee nit léegoo léeg mu waaxu ñëw déy ma na ma maag yow ñoo bokk lu nu yaakaar waaye ki tax ma lay seetaan kenn la muy baaba kër si ki tax ngay tax nag te taxawul naan la maa tax ngay tax dëgg dëgg boo goree ne ko yaa tax may tax kan moo tax may tax man Serigne Babacar Sy la waaye nag Serigne Mansour borom daara ji sama Serigne daa waxoon ne gaañaa ngi ci biir gaañi te bu ñu moytuwul gaañi gaañi danañu gaañ gaañi <laughs> lii la borom daa ji waxoon waaye alaaj Medoune juuf ñoo ngi lay siyaara dama wax Medoune ne séeréel piir doo ko ger sekkareem nag danaa bëgg ñëpp yaatu ci ndax bëgg dama bëgg lu waay wax ci moom am ko Medoune duwul ku ñuy ger ci alal waaye bëgg na jàmbaar joo xam ne boo ko cee jaaree mën naa wàññi yëf yi muy Serigne Saliou Mbacké bu ma waxee mu ne ma Fadel dafa yaru ma ne ko nit lu mu mën a yor ci àdduna buy milliard ak lu mu mën a doon sama fu waaye boo amee taalu bi Serigne Cissé bëgg na la Fadel daa ànd ak taalu bi Fadel mën na am ku ne na dajale ku kon Fadel yàlla yàlla guddal soo fan seex bi maa ngi lay siyaara Fadel mii nga doon décorer sunu sunu yëf la ndax moom kereeg bi mu ubbee sitam boobu bokk na ci ñi ma njëkk a woo di ma ko wax di ca sàkku ñaan euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a barkeel bakkañang gis nañ ko wuy neex na visa États-Unis waaw moo ko wutoon mooy magam Abdoul Aziz nee na bi visa jafee nga ko wutal visa mu dem kon yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla taxawu leen mbir mi nag ñaan lañ koy mottalee bég nañu kii nga xam ne moom lañ doon tudd tey ñoo ngi ñaan ci darajey Serigne kër si yàlla na ñu am bis boo xam ne bis bi ñu ne moom la ñuy muur muy sëyi yàlla na ko yàlla dogal yàlla bu mu laajte melow baayam yàlla bu mu laajte melow yaayam yàlla bu mu jirim yàlla na am xel ak jom jamono ji nag ku fi jur du ñaanal ko ñaar yi na am jom na am xel ndax nit ñi ñàkk na nu jom te nangootunoo liggéey te bëgg nanoo tedd te as gor day am jom maanaam social li koy lal nga bir boo woote nit ñi jox la du dara lu dul personnalité gi nga am di dignité bi nga am boo ñàkkoon fayda danga fi yë koo xam ne nooyeetul danga ko teg askan wi war a woote jox la kenn du la jox ndax danga ñàkk fayda waaye boo amee fulla am personnalité am fayda boo indee malaat teg ko ci penc mi gars yi danañ ko faj ndax sa personnalité xam nañ ne doo waxantu kon Fadel yàlla yàlla guddal sa fan alaaji dégg daaj mu sëriñ saaliw alaaji dégg yàlla yàlla guddal saw fan nit ku baax nga nit ku mën a rafetal nit ku am fulla bi nga doonee xale waaye doonoo xale kenn ndax am nga fulla am nga fayda waaye daal la quinze ñor na ma de. la 15. la 15 invité naa la. la 15. Abdou xam nga duma la ko wax. la daal bëgg naa kóoroo mu ne ko cuy la 15. ko sol. la 15 daal affiche bi yow laa ko sas. ndax am na loo ma déy te man ku ma bëgg a ñam ku ne da ngay jaayante. affiche bi na daw léegi. dal ci sama téléphone dégg nga fa ñuy baase it na nga ko laajte nga baas fa bu paree ma jaayanteeg yow ci barkeb Serigne Babacar Sy nga xool at mu bees mi nan lay demee ci yaw loolu rek laa am ci lu ma lay wax wasalaamaaleykum yàlla na ñëpp am jàmm ci barke Serigne Babacar waaw na jàmm wa inni u'iizuha bika a durriyataha min aseytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamazati sayatin wa a'uuzu bika rabbi an yaxdurun nii ixwatul iman wal irada nuxayikum bi taxiyati alislaamiya taxiyatan tayibatan wa tamanniyatan xaalisa wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ci turu suñu kilifa gu màgg gi ñu àndal muy Cheikh Mouhamadul Mounir ibnu mu Mouhamadul Misbah Amar ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Ibrahima Dior ibnu maam Goumba Amar mi nga xam ni moom rek moo am ci Sénégal Serigne Touba ñëw gane si ko fanaan ak moom Cheikh Al Hadj Malick dëkk ak moom juróom-ñaari at Cheikh na Cheikh Sadou at bi bàyyi ko Nimsaat ñëw fanaan ak moom ba bët set jëmm ji rek moo am ñett loolu fii ci Njaarnde kon jëmm jooju bu teewee fii jox ko kàddu lu war la mu yëkkati kàddu lu jekk la lu rafet la waaye lu gën a rafet li fi am léegi it sëriñ bi xamu ko ay mbokk yu daje di wax ay baax baax ci seen biir famille di joxlante teraanga sëriñ bi lool rekk ko tax a jóg ndax su sañoon fu mu dem fekk fa jàmm te bi mu ñëwee ba léegi jàmm la fi gis kàddu yu jàmm rek kay jóg kon jataay bi yàgg na waaye alhamdulilah rek lay wax boo gisee sax ñu bëgg ko bëgg ngeen yolomal ko mooy day ku ñëpp bokk ndax yàlla dogal na région boo dem ci Sénégal fekk fa njabootam boo duggee nii tuuti croisement ngu njaan nga dugg mbusnaax ngàcc seko mbeefej kabaak ndeer ndeer ngurumbaan daaraam jaa nga fa te ña fa nekk ñëpp bàyyi ma leen dugal ci lislaam faadal mii xam na li may wax bëkk démboo njaay la jóge njaarnde te njaarnde bis ba mu fa def day bisu diine ji yëpp kon bu teewee fii teewal na ñëpp ni mu jataayee ngir deret yonent yàlla Muhammad jim yor ngir ñaari wet rek ku séq dara maa ko boo gis te mbokk njaarnde te muy dégg genn wetam Seydina Aliin la genn wetam Seydina Abi Ayyub al-Ansari kon moom mi fii teewal na fi njaboot turuxu suuf yi yëpp ndax moom moo am sansu nit yàlla yi daje ci ëttu maamu sëriñ bi nag mi ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal yàlla jàmm tey wax ni xolam sedd na ci njabootam bii di Fadal ndax Fadal yàlla moo ko boolee ci njabootu sëriñ lu sëriñ bi woote teew na fa ànd ak ay moyem ak kàttanam ba ci barki démb tooli sëriñ bi nekk njaarnde nga xam ni sëriñ bi bu ko wootee fu ne nit dina fa jóge ci Sénégal dem Fadal dafa jóg ànd ak Dakar Buzz ñëw dugg ci biir tool yi fi donga yi gën a bare fi ngóob mi gën a méttee mu ànd ak caméra maanaam topp leen ni day xool liggéeyu sëriñ bi ci àll bi. Magal Touba li muy rëy rëy ku ne xam na ni kilifa yi bare nañ Touba waaye Fadal guddi Magal tant boo ko dàkk fu dul tantu sëriñ Mounirou doo ko gis. guddi màggal boo ko xaaree ci Dakar Dakar Buzz di nga gis diggam ak sëriñ bi kon diggam sëriñ bi lu yàgg la kon nag Fadal sëriñ bi ñëw na fi ñetti façon ñëwi benn bi mooy ñëw na fi ci en tant que sëriñ bi seet si taalibe boobu moom la gën a moo ko gën a ñor ndax ruux lay defar ruux te uxaddimu ustazi ala xaq xaqi walidi walaw kaana lii fil walidi lbirri wal lutf fa haza murabbi ruuxi wa ruuxu jawharun wa haza murabbi jismi fa huwa lahu saq boroom xam-xam bu mag dafa wax ay wax Serigne Touba leeral na ko nee na dafa am ci mag ñi ko wax ni uxaddimu ustaas yi jiital naa sama xaqi Serigne ala xaqi walidi sama xaqi waajur ñëpp ni loolu nu mën a deme mu ni waaw parce que waajur yi jëmm ji lay toppatoo te jëmm ji moom yàlla ko bind ci ban ak ndox day mujj rek génn àddina ñu suul ko sax yi lekk ko yax ya suuf lekk ko lam bàyyi ay njabootam doon ko jëf ja sama borom àtte ko mu ne kon jëmm jooju ëllëg day furam waaye ruux gi nga xam ni moom du yàqu day yéeg ëllëg moom la sëriñ bi topp toppatoo léegi nag mu ni jëmm ji mooy morso bi def wurus bi ruux gi nag mooy wurus bi morso bi def wurus bi nag da koy sànni jël wurus bi takk kon moom mu ni wurus bi la gën a fonk ci morso bi kon sëriñ bi loolu la jiital ci tànk yi ñaareel bi mooy tànki xarit ndax doon nga taalibe waaye sa intelligence ak sa xel tax na sëriñ bi boole la ci xariti boppam ñetteel bi mooy mbokkoo gi bu maadiya waxaadali axraadiya zaadan ridan lil karami loxo xitaab bi daax yaa bi ma yu xiib bu ma diyaa waxaadani axraadiyaa zaadan li lil karami sëñ Bamba nee yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana يا ربنا كن سحيانا بالمنتقى محترمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا كرس خيانا بالمنتهى rakk ju nu gërëm la ñun dey dañ koy tiitaroo ñoo di magam de xaadim laam Mohamed Fadel mi dañu koy tiitaroo ndax lu baax li muy def ñu di ko dégg di ko sagoo di ko ñaanal yàlla yal na yàlla barkeel ko sëriñ bi nga may ñu tuuti rek nu jël kàddu xalifa bi mu wax ma jottalil ko Badara bisimilah. salaamualeykum wa rahmatulah. nee na asalaamualeykum wa rahmatulah. sëriñ bi ñu ngi lay ziyaara. nee na sëriñ bi ñu ngi lay ziyaara. ndax fa nga jóge sori na. ndax fa nga jóge sori na. ndax faadal la ko jaral. ndax faadal mii moo la ko jaral. loolu amuñu payam. nee na loolu amuñu payam. gannaaw loolu. nee na gannaaw loolu. ñu ngi sant suñuy wayjur yal na leen yàlla xare àjjana. nee na ñu ngi sant suñuy wayjur yal na yàlla xare na àjjana. Maxfus Ñang Cheikh Nguraan Ñang Naar nee na Maxfus Ñang Cheikh Nguraan Ñang Cheikh Naar Ñang Cheikh Badara Ñang ak euh, maam Borso Ñang. maam Borso Ñang. na leen yàlla xare àjjana. yal na yàlla yërëm leen ci yeexanu. ndax boole nañ ñu ba ñu gën a booloo ñun nit. nee na boole nañ ñu ba ñu gën a booloo tey jii. nee na ñun ñëpp ñuy seeni doom. bis bi nag dafa am ku ko waral. nee na bis bi dafa am ku ko waral. ki waral bis bi dëgg. nee na ki waral bis bi dëgg. ki jara sant dëgg. ki jara sant dëgg. mooy tante Ndeye Lam. mooy suñu tànta Ndeye Lam. ndax man dama nekk ak Ndeye Lam ca biir kër ga. ndax ak Ndeye Lam ca biir kër ga. man ma mag ndey laam. nee na moom mu mag ndey laam. ma jox ko cërub ndey. mu jox ko cërub ndey. mu jox ma cërub doom. mu jox ko cërub doom. mësuma koo ñi may wax ndey laam tànn ndey laa koy. mësu koo ñi may wax ndey laam tànn laam la koy wax. li ma ko magee bari na. nee na te li ma ko magee bari na. li waral loolu. nee li waral loolu. ni mu nekkee woon ak sama wayjur. nee na ni mu nekkee woon ak sunu wayjur. dama koo naw. nee na dama ko naw. ndax dafa fonkoon sama wayjur. ndax dafa fonkoon sunu wayjur. am nay jamono. nee na am nay jamono. sama wayjur na ci feebar. sama papa nekk ci feebar. sonn lool. sonn lool. ñu ni nañ ko jëlali garab gu ne mbay ñu ni nañ ko jëlali garab gu nekk Bambey. sama papa fexe ba jóg. sama papa fexe ba jóg. ñu ni koy jëli garab gi. nee na ñu ni ko kuy jëli garab gi. ñu ne ko ndey laam yaayu faadal mii mooy jëli garab gi. ñu ne ko ndey laam mii di yaayu faadal ñang moom mooy jëli garab gi. sama papa ni kii du dem bu demee bala moo ñëw ma dee. nee na sama papa ni kii dem bu demee bala muy ñëw mu fekk ma dee. wan ku lay kuy def boobu témoignage. nee na kuy def boobu témoignage. am na fu mu la teg. am na fu mu la teg. am na foo ko teg. nee na am na foo ko teg. sama wayjur nag ni max fu ñang. nee na wayjuram ni max fu ñang. jigéen ñi mu nekkaloon yëpp. jigéen ñi mu nekkaloon ñëpp. ñoom ñëpp a baax. ñoom ñëpp baax. ñoom ñëpp la yàlla baax. ñoom ñëpp la yàlla baaxal. ñoom ñëpp la gërëm. ñoom ñëpp la gërëm. waaye bisu tey bi. waaye bisu tey bii. tànday moom moo ko moom. tànday laam mii moo ko moom. te tànday laam. nee na laam. gis naa ci moom ñetti ngërëm. nee na gis na ci moom ñetti ngërëm. way juram bi ko jur. nee na way juram bi ko jur. moo ko jëkk gërëm. moo ko jëkk gërëm. ndeyam gërëm ko. ndeyam gërëm ko. sama waajur di sama baay gërëm ko. sama papa Mahfou mii sunu waajur gërëm ko. kon ay doomam mën nañoo baax. kon ay doomam mën nañoo baax. faadal mii nag. faadal mii nag. yàlla na ko yàlla sàmm. yàlla na ko yàlla sàmm. yàlla na yàlla yokk suturaam. yàlla na yàlla dolli suturaam. ndax euh, man am na fu mu ma teg. nee na man mii am na fu mu ma teg. te foofu mu ma teg. foofu mu la teg. man nekkuma fa sax. nekkuma fa sax. Euh, tabaski gii paase. tabaski gii paase. dama ñëw ci yegsi ci kër ga. dama yegsi ci kër ga. bu ma yegsee ci kër gi. bu ma yegsee kër ga. gis xar muy yeewee. gis xar muy yeewee. ma ne sama doom bu jigéen bi mooy jëkkantoog man ni day damay jëkk a jënd xar. nee na doomam bu jigéen bi di jëkkantoog moom ni moom mooy jënd xar. bon ma ne ko moom xar mi. ma ne ko ku moom xar mi. mu ñu ma faadal ko fi indi. mu ko faadal ñang moo la ko fi ñëw yeewal. am waaye dafa def nee na xam na ni am naam xar waaye dafa rafet mu defal ko ko. loola mu def nag yàlla na ko yàlla fay. loolee mu def yàlla na ko yàlla fay. maa ngi sant jiili ñang mi. ngi sant jiili ñang. di sant. Euh, xaadim nee di sant xaadim laam mii toog xaadim mii moom nee na xaadim mii toog sama péete la nee na sama péete la yàlla moo ñu boole nee na yàlla moo ñu boole di sant nag suñu kilifa nee na du sant nag suñu kilifa muy yanaañang mii muy yanaañang mii toog amuñu payam amuñu payam yàlla na ko yàlla kàttanal yàlla na ko yàlla kàttanal yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ko yàlla suturaal ko yàlla may gudd fan yàlla may ko fan bu gudd ak wér sama rakk yu jigéen yëpp nee na sama rakk jigéen yëpp maa ngi leen di sant nee na maa ngi leen di sant ndax kenn ku ci ne nee kenn ku ci ne kala yàlla booleel. yaa nga fa toog di muñ yaa nga fa toog di muñ. kenn ñëwul ci man. kenn ñëwul ci man. ni ma sama borom kër ni ma sama borom kër nangam. sama rakk yu góor yi sama rakk maa ngi leen di sant. maa ngi leen di sant di leen gërëm. am nañu jom. nangu nañoo liggéey nangu nañoo liggéey. topp nañu sama gannaaw topp nañu sama ginnaaw. topp ci ginnaaw yanaa ñen ñi. yal na yàlla dolli suturaal bi bokk yi. Hmm? bi ci loolu jógee. nee na jiiri nee na bi ci loolu jógee. ñu ngi gërëm Binta. nee na ñu ngi gërëm Binta. Fadal sax du ma fa wax parce que euh, Fadal Badara mooy wax wax loolu. nee na Fadal moom du ma ca wax waaye Binta mii moom a jar moo tax ma wax. Binta moom ñu ngi koy gërëm bu baax. nee na Binta ñu ngi koy gërëm bu baax. muñal gi mu muñal Fadal. ci muñal gi mu muñal Fadal. déggal ko ak bëgg ko. déggal ko ak bëgg ko. bëgg ay mbokkam. bëgg ay mbokkam. man lu ma nekk mi ngi ci. na moom mii lu mu nekk mi ngi ci. chaque jour day ñëw ni ma jili loo bëgg ma toggal la ko añ. nee na da koy wax toujours ni koy waxal jili loo bëgg ma toggal la ko añ. takk ko koor ci nee na ba ci weeru koor dafa takk añ bu bari andi ko. kon nag maa ngi di ko gërëm. nee na kon mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm. di ko ñaanal uh, fi am rek yàlla ko yàlla. di ko ñaanal lépp lu mu am ci kër gi yàlla na barkeel. nee na tey moom du gërëm faadal binta lay gërëm. bokk yi kàddu gaa ngi noonu nu jox sunu xarit sunu wëlëre du sunu sëriñ maam xaadim laam bisimilah sunu nijaay. waaw may na ah, ngeen jëf ci kàddu yi man sax waruma woon a wax ndax tey yéen yéen a xewle ñun dañ leen a ñun dañ leen a dañ leen a yiiral rek waaye daanaka tey lu ngeen fi def ñun ngeen ko defal ki ni njëkk sant nag mooy sëriñ bi sëñ Mounirou. Amar ñi ngi lay siyaar bu baax ndax ñun waa kër sëñ Jéeri lan kër gi doomi sëñ Jéeri yëpp fanaan nan fi li ko dale ci sëñ Amadou sëñ Daam Joor sëñ Bamba Joor sëñ Touba ñëpp fanaan nan ci kër gi ndax ñoom ak sunu baay ñoo nekkoon ak sëriñ Jéeri ca Waadaan sunu maam Masamba Ngoy ma nga tëdd ca Waadaan kër gi ñoom ñëpp fanaan nan fi man mi maa la daan ataa sëñ Matar Sougou muy xalif ba mooy sama sëriñ kon boo fi teewee sunu xol day sedd yàlla na sunu borom dëgëral la yàlla na sunu borom sàmm la ñu lay dénkaat nag faadal dénk nañ la ko ndax xale la boo xam ni dañoo bëgg mu gudd fan ndax sëñ Cissé mu sëñ Babacar si mi ngi doog a agsi ànd ak dégg daaj ñu ngi koy jox ware ñu wàccuwaayam kon li ma ciy wax rek mooy jox ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo yor programme bi mooy ak cant rek la ndax la in sakkartum la azidannakum yàlla neen bu ngeen ma sant rek ma dolli man damay sant tey sant gi nag maa ngi koy tàmbalee ci ji max fu ñang ndax ba muy ñëw fii sunu baay nelaw sunu yaay nelaw ñun booba kenn mënu cee jënd ñaari tàngal mu bàyyi këram ànd ak sunu mag ñëw dinu nu ci ay jirim bu xëyee mooy joxe dépasse suba ak ngoon moo tax ay doomam yi yamalewul rek lu yàlla bind max fu ñun mooy sunu baay ndax sunu baay day mag teel a dem ak sunu wajur bàyyi ay jirim max fu bàyyi këram indi ndeylaam ci biir kër gi yor ñu dina jox añ dinu jox reer bu ki jotee mu jëndal ñu am xar mu mag loolu moo tax ay doomam yii mënuñu la yemale kenn ñoom ñëpp ci kër gi leen yaroo ci kër gi leen defee seen lépp ñu xale yu am yar xale yu bëgg seen nijaay xale yoo xam du siggi xool seen nijaay faadal nag dafa yàgg ak ñun di suñ séddoo ba muy xale fii rek la xam waaye ba mu demee ba yàlla mëneel ko gan faadal bàyyiwul kër gi faadal mooy fay ndox mooy fay courant li ma noppal dafa bari ndax góor gi laam nee na ku diis ku koy awu mooy mbokkam dëgg kon nag awu na ma maa ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam waa kër max fu yi nag mënuma leen a fay ñoomit it rawatina badara bi xalifa bi ndax lii ko faadal def jëndal ko am xar yaa ko njëkkee ndax ay xale lañu woon seen baay néew doole bu tabaski jotee nga jënd xar jox seen baay looy lebal xale nay lu baax ndax ëllëg da koy fay yaa leen ko lebal de ndey laam dama daan dikk mun a badara day jëndal na jëndal na ñoom faadal xar booba seen bàyyi wàcc na liggéey kon xale yi danoo fay te nag bàyyeegul la de li fekk yóbbuwul la màkk barke sëñ Bamba bàyyeegunu